السلام ورحمة الله وبركاته اعتدال تمام طب تمام طب اعتدال إلى السماء جاء سماء كتيب سماء تمام ميزان طب تسليم سلام الله عليكم اعتدال واو جميل تام تسليم سلام الله عليكم اعتتاب إلى السماء جر سماء تجيب سماء سر أمام ميزان طب ميزان طب اعتتاب waaleykum salaam leen di nuyu ci turu mboolem këru diine yëpp di jël seen nuyoo di ko teg ci loxol Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sall mi xalifa njabootu maam Abbas Sall radiyallahu taala anhu ñu delloo ko ci askan wi ci di tabax ay juma di tabax ay orphelinat di dimbali ay néew di doole di gas ay teen di dimbali ñu ñàkk loolu tey lañ bëgg jox nag askan wi officiellement ñu ànd ci nag ak ONG Al li ma ko waxee kilifa yaa ngi taxaw waaye ma jël ñaari xale mbokk ñii ay jirim lañu ONG Al xale yooyu lañ leen tànnal ñu représenté ñii ci ginnaaw di orphelinat bu Dakar ne tey loolu tam lu jar a fàttali la ndax daf ni mbir mi sama mbir la kon maa koy taxawul sama bopp donc seede leen samedi 15 janvier 2022. gis naa gën nga xam ni ONG Xayriya moom moo ko xam waa kër Serigne Sall tey lañ koy livré société sénégalaise tey lañ koy livré àdduna bi yëpp kon coupe du ruban Bango ci loxol monsieur Racine Ba directeur de la haute autorité du Waqf euh, la président Macky Sall euh, daf cee def loi pour organiser Waqf ci Sénégal moom la ko teg ci loxoom ñu ciy def liggéey bu rafet ànd na ko ak Cheikh Abdallah Dia. PDG bu Sénico bi nga xam ni mooy sponsor leader bi journée tey la mu àndal kon euh, yëf yaa ngi noonu ci teewaayu nag presse bi yëpp ñu ngi sant di gërëm. Serigne Abass bi na ci yar ci téereem bee mu def lu ci yar waay maanaam ci lu dul yaru yaw te du ko jëriñoo mbokk yi ku gis lii gis ni société bi muy ñu imposer beneen type de sénégalais boo xam ne li mu man mooy dugg ci réseaux sociaux yi di wax lu ñaaw li mu man mooy jàpp kilifa yu gore yi ànd ak ngor di leen wax lu ñaaw mbokk yi ku gis lool xam ne sunu ñii duñ ci bokk abadan ila yawmi diin ban lañuy yar la yor mooy yarub Serigne Abbas Sall radiyallahu taala mooy lan yeewu te yeete mbokk yi li ci gën a neex moo di orphelinat yu ñu mën a nekk ci Sénégal doo fa dem ba fekk fa photo Serigne Abbas loolu lu muy firi mooy ñoom récupéré wuñu ay nit ngir transformer leen ñu doon seeni taalibe loolu lu la mbokk yi ku dund ak xale yi ci biir ci bitti di yeewoo ak ñoom di fanaan ak ñoom ni ko Cheikh Abdoul Fattah mii di defee ni ko El Hadji Sall mii di defee ni ko njabootu sëriñ Abba Sall gi di defee boo gisee ñu def lii ànd ci ak fri sig gi xool askan wi te ku leen gis ak ni ñu soloo ni ñu sete ni ñu nayee nga xam ne ñii kat seen bàyyi dem na de waaye bu doon dundit mën leen a yor yor bu ëpp bii ku gis li sa xol tooy ñu ngi leen di jéggalu baax a baax yàlla yàlla suturaal te eggale liggéey bi incha allah. foo mën a jëm waxam jawal quraani moo lëkkaloo moo firi bil bayaani yàlla muhammad na yàlla fay ko tafayit gaayam ya ci ñun la yàlloo mooy ka xam dayoom ya yontu yàlla muhammad moom moo ni diine moo di ak laabiire ci wax ju wóor lu feeñ la ak la biire ibnu abbas nee na yont yàlla muhammad moo wax itam képp ab sàmm la te dees di laaj ab sàmm lees ko sàmmloo ibnu abbas nee lii moo waral ma jóg di laaye biire njaboot gi ngir saytaane laa di fiire njaal beenu gi laa ma wax koy walaf yu leer yu te doo ci gis luy nuru kaf ibnu abbas ne na du saaw maniin du lu miin ci mii mbir waaye wolof nee na ku jaaxle dog wor wax ju gudd gàtt nañ bàyyi mana nañ yew te yeete nelaw yi yàgg na nañ gëm bu wóor wóor te jaamu yàlla te nu ragal yàlla te wéetal yàlla wéetal bu wóor jëmm ja wéetal melo ya te wéetalit jëf ya te màggal solo ya moom moo di buur amul beneen bu moom mooy kañeyoo jaamu ga lépp moo ko moom yàlla moo bind nit ci coobareem jox koy ngëneel yamu joxul keneen ba lépp moom la mu déndal ko suuf si tàlli ñatt muy lalam def asamaan téegam ci kaw ci man manam def lépp luy dukkat ci suuf di am amam gu sell ñeel ko tëbb ko ci xam-xamam fam def ko sax muy ku ko wuutu fii ci suuf malaayika ak jinne yi ñëpp a féete suuf nit kii bu jaa walee keneen ak bii boroom mooy kayo sànjaba mooy yées ci moroom ah. Ah.